Euh, ma waxagum leen rek lan la Eric euh, jëndoon bu mu demee marché lim njëkk def mooy ne biñ jox biñ ko joxee dépense bi dafa dem marché def lii mooy ne jënd lidi fish boo xam ne ah mu ngi day nii mu jënd euh, liñoom jënd karot jënd lidi tomate